kon faslun fil xayd yi lii itam benn buntu la ci wàllu mbërëg bu ñu nee mbërëg mooy indisposé nee na wan nisaa u jigéen ñetti façon lañ yoo xam ne ñooy gis mbërëg nee na mubtadaatun am na jigéen joo xam ne dafa commencé jigéen joo xam ne ji dafa commencé gis mbërëg xale bu tuuti 17 ans 18 ans wa mu'tadatun am na jigéen joo xam ne moom aada woo na ko yàgg na koy def wa xaamilun ak jigéen joo xam ne dafa ëmb nee na wa aksarul xaydi li gën a bëri ci mbërëg lil mubtadaati ci ki nga xam ne dafa commencé li ci gën a bëri xamsata achara yowman fukki fan ak juróom lay doon la ci gën a bëri ci ki nga xam ne dafa commencé gis mbërëg kooku mbërëgam gën a yàgg fukki fan ak juróom lay doon walil mu'tadati wante ki nga xam ne moom baaxam la yàgg na koy gis aadatuha kooka aadaam rek nam ko daan gisee rek la bu fekkee juróom benni fan la juróom benni fan bu fekkee juróomi fan la juróomi fan bu fekkee eh, ñeenti fan la ñeenti fan fa in bu fekkee dafa continuer ak damm bi xaa ci ci ci ki nga xam ne moo ko gis ak damm deret ji bu fekkee dafa mat fukki fan ak juróom ci ki nga xam ne dafa commencé walla ki nga xam ne baaxoo na ko heure ba mu ko waroon a jeex eh, maanaam heure ba mu waroon a jeex jeexul waaye deret ji dal di continuer zaadak dal di dal di dal di dooleeku salaasatu ayyaami ñetti fan motax mune mu ne maalam 15 xamsata dépassé wul fukki fan yi juróom walil xaamili wante ki nga xam ne dafa ëmb nag moom baada salaasati ashhurin gannaaw ñetti weer gannaaw boo xamee ni gis na ko maanaam ñetti weer salaasati ashhurin mooy ñetti weer nee na xamsata achara yowman kooku moom itam mbërëgam mu ngi war a nekk fukki fan ak juróom wa nax waxaa ak yi nga xam ne moo tolloog noonu wa baada sittati ashhurin bu fekkee dafa toog gis ko gannaaw juróom benn weer kooku na toog di lim ishruuna ñaar fukki fan moom la war a calculer mbërëgam masalan bu fekkee dafa ëmb ba am ñetti weer gis mbërëg mbërëg ba na ko calculer fukki fan ak juróom bu fekkee dafa ëmb ba am juróom benn weer wëlbatiku di gis mbërëg mbërëg mën na ko kon maanaam na ko calculer ñaar fukki fan wa naxwuha ak yi demee noonu fa ineen qataa damma bu fekkee damm bu fekkee deret ji dafa arrêté bu fekkee deret ji dafa arrêté te ñaar fukki fan yi matagul la faqat ayaamahu xata tukammila aadataha dafay dal di boone fan yi nga xam ne moom la deret ji arrêté moom lay jël di ko calculer ba ñaar fukki fan yi mat moo tax mu ne xata tukammila aadataha ba mu mun a matale li nga xam ne moo nekk adam wala yaxillu du dagan mukk lil xaaidi ci ki nga xam ne dafa gis reegal du dagan ci moom salaatun julli wala sawmun du dagan itam ci moom muy oor weeru koor wala tawaafun du dagan ci moom itam muy wër kaaba du dagan moom muy laal kaamilu alquran wala duxulu masjidin du dagan ci moom itam muy dugg jàkka xëy na ki nga xam ne dafa gis mbërëg moom lañu wax ni du du julli du oor du tawaaf du laal al alquran waaye nag bu fekkee jigéen gisul reegal set na wecc jàpp na mën nay jàng alquran may nañ ko mu jël kaamil bi wëlbati ko jàngu xëy na ñun loolu moom lañ déggul ba am na ñoo xam ne naan jigéen du laal kaamil loolu njuumte la jigéen ju am mbërëg lañ wax ne du laal kaamil waaye jigéen bu fekkee amul mbërëg amul sobe jàpp na te mën nay jàng alquran dagan na ci moom mu dal di muuru jël kaamil alquranam toog di waq di jàng alquran comme ni ko góor di jànge kon loolu il faut ñu leeral ko bu fekkee dafa gis mbërëg lañ wax warul laal kaamil waaye su fekkee eh, gisul mbërëg deful dara jàpp na kooku may nañ mën nañ koy may moom jigéen ji mu laal kaamil am na ci ñoo xam ne dem nañ ba bu fekkee kaamil ba dafa tegee nga di jigéen boo koy gis rek di daw boo koy gis rek di daw eh jigéen du laal kaamil jigéen du gis mbërëg lañu wax waaye su fekkee gisuloo mbërëg ni góor amee droit laal kaamil di ci jàng yow jigéen gi noonu amee droit di laal ci jàng kon loolu jar wa alayha dina war ci jigéen jooju ki nga xam ne dafa gis régal dina dagan ci moom xadaa u saw mi mu fay koor fekkee dafa gis régal eh, bi mu gisee régal warul woor waaye bu fekkee sangu na day calculer fan yi nga xam ne moom la dogoon wëlbati ko fay ko du duna salaati waaye fan ya mu bàyyi woon ci julli ga moom du ko fay kon ki gis régal bu fekkee danga bàyyi woon ay fani woor war ngay mën a fay koor ga waaye julli gi moom dañ la koo baal ne la léegi ko fay وقراءتها جانغ بيمي جانغ القرآن تم غناو بومو غيسي ريغال نانا جائزة تغن ولا يحل وين دو تغن موك لزوجها جيكيغا خامنا موي بروم كرم فرجها قيم دو سيك موم جيغن بو فكي دافا انديسبوسي كين نورول سيك موم ولا ما بين سرتها لي نيك سي ديغنتي جومبخ بي اك اومي صاح نينا وروكو وروكو لال فوف يوب دنجكو ورا سوري موتاخ مو ولا ما بين سرتها وركبتيها góor gi waru warul sëy ak jigéen ji nga xam ne dafa gis reegal warut laal li ko commencé ci jumbox bi ba ci ñaari wóom yi foofu itam bul ko laal bàyyi ko xataa tax tasi la féeg sanguwul féeg setul bu setee nag am nga droit léegi sëyaat ak sa jabar faslun itam benn bunt la fi nifaasi ci gësin te suñu nee gësin ci baatu wolof mooy jigéen joo xam ne dafa am doom mooy jigéen bu amee doom dina am deret joo xam ne mooy génn ci moom ba keroot deret jooju di arrêté mu dal di sangu mu ne wa nifasu gësin moom itam kal xaydi dafa mel ni règle jigéen ju g am deret jigéen ju am doom deret ji génn dafa mel ni jigéen joo xam ne dafa indisposé fii man ay xii ca lam koy tere li la indisposé di tere moom la la gësin di tere wa aksaruhu li gën a bari ci gësin nag surtout na yow man juróom benn fukki fan lay doon maanaam ñaari weer moo tax ñu ne jigéen bu fekkee dafa am doom dañu koy bàyyi kenn du sëy ak moom ba mu mat ba mu am lu mat ñaari weer فإذا انقطع الدم بفك دفع أم جرم بفك دفع أم نار ويرت مو جرم بين فكفان درجة دلجة أريت ولا درجة دلجة أريت قبلها لجيت نار ويري ولو في يوم الولادة دون تصدق دفع لك تبيت مو أمي دوم نخ أمنا نيو أم لني أم دوم رك سن درجة دلجة جن بين ليون مو جيخ نانا بفك نار وير لين لماي مو جرم بين فكفان بفك درجة دفع أريت لجيت جرم بين فكفان يمات دون تصدق بس بيجا أمي دوم رجله deret ji dal di jeex ixtasalat dafay dal di sangu wasallat mu commencé di julli dafay commencé di sangu di julli waaye nag kenn du sëy ak moom fa isa awadaha damm bu fekkee deret ji dafa dellusiwaat fa in kaana baynahuma bu fekkee diggante bi deret ji arrêté ak bi deret ji dellusiwaat bu fekkee dafa mat xamsata achara yowman fukki fan ak juróom fa aktar wala lu ko gën a bari kaana nekk na asaani yi delsi bi deret ji delsiwaat xaydan kooka régal la waaye nekkatul gësin kooka deret jooju nga xam ne bu fekkee diggante bi euh, bu fekkee diggante bi nga xamee ni bi deret ji dafa arrêté te date bi matagul juróom benn fukki fan yi matagul walla mu am doom rek deret ji dal di arrêté ba mu jeex nee na dafay sangu dal di commencé di julli bu toogee ba mu yàgg nag deret ji dal di delsiwaat bu fekkee diggante bi deret ji arrêté woon ak diggante bi deret ji delsiwaatee dafa mat fukki fan ak juróom nee na kon delsi bi mu delsiwaat nekkatul gësin waaye delsi bi mu delsiwaat léegi reegal la waa illaa sudut loolu damma ilal awal dafay jël fan yi nga xam ne moom la boole ko ca euh, lim ba mu maanaam boole ko ca lim ba nga xam ne mooy mottali ji juróom benn fukki fan yi te mooy ñaari weer yi wakkaana nekk na su wakkaana su ko defee mu dal di nekk min tamaami nifaas yi dal moo ne gësin bi